Bonjour, monsieur le Tout à fait, tout à fait. Exactement, nous avons procédé aujourd'hui donc, au lancement euh, de la restitution des, des, travaux du recensement général, la population de l'habitat. Euh, donc c'est un exercice qui en principe se fait tous les 10 ans et le Sénégal l'a respecté. Euh, c'est un exercice très important euh, parce que les, les données euh, donc, qui sont recueillies auprès des populations euh, permettent d'orienter et, et, de guider les politiques publiques. D'abord, savoir combien nous sommes, euh, connaître les caractéristiques de ces populations et à partir de là, pouvoir pas, euh, déterminer les politiques publiques et particulièrement ce, ce sur quoi donc, les autorités devraient se concentrer euh, pour satisfaire les besoins des, des populations. c'est un exercice euh, extrêmement important et je félicite euh, vraiment l'ANSD et tous les partenaires donc, qui ont participé euh, donc, à, à, ces travaux. Et le travail qui a été fait est un travail euh, titanesque, euh, une, une, mine d'or, je le disais tout à l'heure, en termes de données et d'informations, véritablement que euh, tous les chercheurs et tous ceux qui s'intéressent aux politiques publiques pourront exploiter. voilà. waaw euh, euh, ci olof euh, li may wax rek mooy li ñu def li ñu fi indi tey moo doon partager recensement population bi parce que fukki at yu ne dëkk yëpp dañu war a xayma population bi ñaata la ñu saytu naka la ñuy dundee bu ko defee ñi nga xamante ne nii ñoom la yàlla cëral ñuy jéem a saafara jafe-jafe askan bi ñu xam askan bi naka lay dundee naka la dëkkee et yi loolu la permettre euh, nest pa euh, ñu xam donc exercice bu am solo la euh, boo xamante ne nii dina dina tax gouvernement bi mën a xam askan bi nga xamante ne nii ci ñoom lay jëlee xaalis xaalis boobu naka lañ ko war a mën a delloowee bu ko defee saafara seen ay jafe-jafe te balaa ngay mën a saafara jafe-jafe askan bi day day fekk nga xam naka la ñu toll naka la ñu dundee ak naka lañu ñu dëkkee donc euh, recensement bi genre données yooyu yëpp moom la moom la moom la doon euh, donc recueillir euh, am nañ ko et liggéey boobu moom lañ doon donc partagé tey ak partenaires yi donc vraiment may féliciter ANSD le directeur parce que liggéey bi ñu def liggéey bu am solo la àndoon ci ak ay partenaires partenaires yooyu yëpp ñi ngi fi tey donc vraiment maa ngi leen di encourager di leen féliciter ci liggéey bi nga xam ne def nañ ko te liggéey bu nar a am solo la pour li nga xamante ne ni moom lañu dëgg dëgmal ci euh, li ñuy wooyee politique euh, publique